Mm-hmm. loolu amul. Mm-hmm. bu ñu jaawalee bu ñu nekk di critiquer suñu bopp. Mm-hmm. tuur bi am na loo gom. fe fétis bi am na loo gom. mais yëpp benn la. te ñu tuur. sëriñ bi lay wax ne demal indil ma xar. ma reyalal la la ko ma taraxal la ko. moom am na lu mu gom. li tax mooy tuur deret boobu nag am na lu muy communiquer. soo demee ci sëriñ bi nga ne la léegi dama bëgg nga liskaaral ma liskaar boobu bu mu lay wax est moom dafay toog mu wax la wala day tëdd ba guddi ba tëddee mu ñëw mu wax la mais lan la communiqué ba mu wax la bu muy jàngal eh, bu muy tëdd lan la jàng ba mu tëdd léegi nag boo setee mu ñëw mu ne la ne lii laa gis lii laa gis demal def sarax bi waaye indil ma sarax bi les sarax boobu bu muy tuur fan la ko yóbbu kon nag man ma yaakaar ne am na njaay loolu mu wax démb bu ku ne am na yàlla lum ko may nañ ko bàyyee yàlla lum ko may bu ku ne am na lu mu gëm ñun nag africain yu gomatuñu dara dara la ñu gomatul si fekkee tuur ay baaxatul mais yonenti amul kenn ku lay wax ne dëgg yonenti bi reyoon nañ fa nag mais ku baayam dee danañ ko reyal nag ku jabaram dee danañ ko reyal nag mais lu tax deret boobu nag ñu koy tuural comme si fekkee lu ñu tuural araam na baaxatul comme bu ñu tuural dara comme dara fu mu génn baaxatul rek araam na comme bu ñu tuur dara gàmm yu ñuy def dañuy tuur deret mais deret boobu pour lan la comme nag dama bëgg ñu too euh, ñu xool jëmm yi baax na mais nañu indi ñi nga xam ne xam nañu wàcc nañu si loolu ñu taxawal ñu xamal leen lii la mais tey ñu ngi critiquer suñu bopp bi amatuñu cosaan cosaan léegi si solu yére rek mais du si pratique du si pratique du si yar du si dara ñun nañu solu yére wala di fecc wone leen lii la comme nag man ma lu may mën a wax yéen ñu nekk si télé bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm amul benn féticheur bu la mos a wax ne indil ma deret nit amul amul benn fi tuurkat ku lay wax ne jox ma sa doom wala jox ma sa jabar li si des na yow yaa xam lan nga dugg te nga mën a rey sa doom li yaa xam loo dugg loo mën a rey jabar wala yow yaa xam loo def te ñu digal la si yooyu yeneen yi ko xale bu jigéen bi am na lu mu wax ñuy rey nit ñooñu ay criminel la ñu nañ leen mais du affaire xam nga mafia dafa am nit ki da am problème ak keneen mu fay ñeneen xaalis nañ la dem rëy ñu ne la la fétiche moo tax mu rëy ko wala lii moo tax mu rëy ko yooyu bokkatul amul benn féticheur bu la wax ne laaj na la nit kooku amul amul si àdduna kon nag tuur bii nag si fekkee baaxatul kon képp lu ñu tuural deret nañ ko bàyyi soo yoree rab ñu ne la tuur tuur olof moo wax ne tuuralal ko. jërëjëf jërëjëf Balde. jërëjëf <laughs> maître Adama Baldé kontaan nañu lool lool waxtu wi dab nañu moom dañ ko bañoon dagg sax mm. waaye juróomi simili société tegu na ci temps bi nga xam ne mm. moom la ñu naroon arrêté émission bi maître euh, Adama Baldé dañ ko bañoon dagg ndax du wóor ma fatubakàlla macha allah zëy kon dañuy tàggoo ah tey moom sama mm. temps looy tàggoo looy tàggoo waxtu wi jeex na tàkk waxal looy tàggoo déggéen nag affaire de tour xërëm moom sincèrement man dama ne yàlla loo ko dénk mu sàmmal la ko. Mhm. soo ko dénkee sa bopp dana la ko sàmmal. Mhm. te nit bu jógee. ay dénk xëyam yi daal àndoo ci. non <laughs> yàlla. Mhm. nit bu jógee di la def dara. nit bu demee ci xëram pour def la dara. su àndoo rek c'est parce que yàlla da cee ànd. parce que yàlla lu ko neex lay def te nee nañ li gën lay def. kon nañu jàpp ni rek lépp yàlla. dëgg la xanaa rek di tàggu <laughs> téléspectateurs yi ñu doon seetaan yépp di remercier bu baax. Euh, complexe Sophia Coiffure. Euh, nekk Mamel ak complexe Seydi Djamil nekk euh, Serigne Mansour Rufisque di nuyu ñoom laay yoro ak a baax di leen la semaine prochaine dans Wareef. macha allah macha ñu tàggu rek su Amine Tall sunu doom. Mm. nekk Civis yal na ko yàlla yokk. amiin amiin amiin yaa rabbal aalamiin Fatou Laye. Amadou Boubacar Kenna euh, ak Ajaratu Ayda Jaxate. ñoo mm. koy siyaar di siyaar nag euh, Fatou Sow. doomi Pape sa wóolu sama doom. macha allah waaw. Eh, yal na ko yàlla gën a. waaw waaw Fat Sow Fat Aziz. waaw wallaay wallaay liggéeyam rafet na. wallaay wallaay wallaay neex a yóbbu màkk. lool ak <laughs> Serigne Tako Fall. bu Daaru Salaam. macha allah ak soxnaam ñu ngi koy siyaare bu baax. macha eh, di ñaal nag it maam Fili mu Ousmane Tanor Dieng. macha allah eh, di siyaare bu baax nag ki nga xam ne kii mooy maam Ndeye Marie Diallo moom itam. Mm. mu Papa Diop. Mm. di ko ñaanal jàmm ak Fatou Sow nekk ca Kër Massar. ak station Dabassi bi macha allah Serigne Fallou Galas Mbacke Maane. Mhm. ñoo ngi koy siyaare bu baax. di siyaare nekk sunu doom ja nekk ci Italie. macha di doomi Saadi bu Coy. waaw euh, Aïcha euh, Coy madame Sall. yaay Cheikh Ahmadou Bamba Mohamed <laughs> maire foofa na kii ku Njaay bi nga xam ni uh-huh. baayam la xaritam la moo ko may woon macha allah macha allah di ko ñaanal jàmm bu baax macha allah ak uh, madame Gumbala ak soxna Awa Gaye moom soxna asfalum Cheikh Ibra macha allah ak Amini Tall bu présidence ak ki nga xam ne mooy sëriñam nag di Thierno Ba macha allah uh, yal na ko yàlla defal jàmm bu baax a baax ndeysaan uh, ki nga xam ne nag day sama doom ma tëjee ko rek hmm. mooy Euh, sama doom joo xam ji lépp lu rafet. mu mm. yéene ma di Omar Sène. doomi Alaaji Amad Ba Sène ak Fatou foofu daal tey duma sar. dëgg la temps bi dem na. macha allah euh, tey nag euh, ku yàpp réer làmbal sam kàddu. <laughs> macha allah alaaji mm-hmm. fa tabarakallah macha allah xanaa delluwaat rek ànd ak yéen ñi ñuy seetaan ci réew mi ak ci bitim réew ziyaarat kilifa diine yi di sàkk ci ñoom ñaan waaye dellu di leen ñaanal ñoom kilifa diine yi fu ñu mën a ne yal yàlla ñor di seen fan seen ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam fa tabarakallah macha allah alaaji tey nag damay jël nuyoo bi yëpp rek yóbbu ko démb ndax démb tax ñu naan tey fa tabarakallah macha allah sama ñoom euh, yaay ajaamat leen jaañ fa tabarakallah macha allah Cheikh Mbacke Ndiaye ko satoog Ndioba Raba Silla ah fa tabarakallah macha allah sama yaay Adja Awa Mbuub mi nga xam ne euh, mooy yaay Kumba Guy Caam commissaire Kumba Guy Caam ñoo daan and ci rajo yi fa tabarakallah macha allah yal na yàlla ñor di fanam wéral cëram ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam sama Cheikh Gagne Siri Gueye ma nga xam ne Sénégal Info ñu ngi koy nuyu fa tubaakàlla macha allah ak képp ko xam ne rek yaa ngi ci télévision yi di soxna rek ñu ngi lay sargal bu baax a baax ndax bu ñu fàtte ne ñoo bokk ndey bokk bàyyi foofu ci 2S ba dama koy teg ci loxo Eva su ko defee mu joxal ma ko ñoom mbay ak ñoom ñëpp fa tubaakàlla macha allah dem ci RTS ah nuyu nag ñi nga xamante ne tamit euh, ñoom ñoo fa nekk teg ko ci loxo Mbayang caam dina ko séddale ah euh, fa tubaakàlla macha allah ñoom ñëpp daal nañu jàpp ne képp ko xam ne yaa ngi ci médium rek euh, ci média privé rek ñu ngi lay sargal bu baax a baax xanaa di remercier waat bu baax a baax aji Diop Thioub rue 25 angle 22 mi nga xam ne moom moo ma ab yi xam naa écritel bi léegi mu jaar remercier waat bu baax a baax ajaratu Fatlaye Kena Amadou Boubacar fatubakàlla macha allah di leen jox rendez-vous suba ci kattanu yàlla euh, euh, yal na suñu borom bi may ñu fekkee ak tal ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen jëf